waaw jërëjëf euh, Aïcha xam nga sëñ mun Muntaxa ñu koy ziar di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général des tijaan ak mbooleem kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp ba ci jàngu bi xam nga Sénégal dafa am lu mu tëddee maa ngi koy wax sànq kilifa buy wax te bu waxee kenn du ko déglu mm-hmm. wala bu waxee li mu santaane duñ ko def day toog ne pat di wax ak ñi nga xamante ni ñu ngi koy jox nopp di topp ay ndigalam di bàyyi ay teram tey jii nii euh, dogal bi nga xamante ni jël na ko man pour man c'est à saluer parce que la moo tax c'est à saluer parce que on définit la politique en disant que la politique c'est l'art de développer la cité du dëgg ou de gérer la cité politique li ko tax a jóg mooy luy ñoŋal dëkk bi te dëkk bi bu ko waxee ñi dëkkee dëkk bi moo tax maanaam loo xamante ni day yéwénal seen dund loolu la ñuy wax ne moom mooy politique mais bu ñu demee ba politique bi nga xamante ni moo waroon defar commencé di jur fitna commencé di indi ay xiiroo commencé di indi ay ñaayoo mieux vaut ñu teg ko ci suuf parce que ñu xam ne li ñu ko doon doyee jariñutu ko du dëgg kon sëñ taxaa bu taxawee ne lu toll ni Touba bu fi politique amati il a parfaitement raison parce que comme ñoom xamuñu li leen war xamuñu li nga xamante ni moom lañ leen may xamuñu itam li nga xamante nii moom euh, euh, moom moom moo jaadu ñu def ko ku nekk nag am nga sañ-sañu comme li olof di wax. Mm. waxtaan na neex borom këram. te Touba titre foncier la sëriñ Touba moo ko moom radiyallahu anhu bu ko moomee ku ko fa toogal moom moo ko moom ay ndigal la topp di wax waaw bu nee déet ñu ne déet fi ma lay delloo kàddu gi mooy ci lii nga wax léegi jëm ci li nga xam ne moo di xale yi gis nga euh, sëñ Adama nee na. président Macky Sall moom mooy responsable foofu duma ma fa ànd ak moom xam nga lan moo tax ku nekk boo utee sa fukki dërëm su ñaar fukki dërëm dajale dem takki soxna yàlla dogal nga am benn doom ñaari doom am njaboot da ngay def de telle sorte que sa njaboot nga yar leen président Macky Sall du dugg kër kenn di yaral kenn doomam di yaral kenn njabootam xam nga lu mu mën budget bi ko sénégalais yi jox mu xool li nga xamante ni solo sans vision jàpp na ne bu ko doxalee mu rafet mu def ko xëy na dina am tuuti ay manquement ndax l'œuvre humaine n'est pas rafet amul lu doomu aadama di def mu nekk loo xamante ni ñëpp dañ naan gongo mais li ëpp solo mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon foofu laa lay delloo kàddu gi nee na nit mënul offrir doomam lu ëpp lu gën a rafet lu gën a baax yar bu rafet ma naxala waalidun li waladihi afdalu min adabin xasan nit mënul jox doomam lu ëpp yar boo xamante ne nii bu rafet la jox ko ay milliards bàyyil ko fi ay immeuble bàyyil ko fi ay titre foncier ay jet privé lu la neex bu amul yar loolu lépp après da koy sàkk saaw mu tàbbi géej te boobaa du ko jariñoo ñeneen ñi duñ ko jariñoo